asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi lu bari euh, ñu commencé waat beneen vidéo di wax ci li nga xam ne mooy area pedonale ak area ciclabile mbedd mi ab lungomare la fii dañ fiy doxantoo nga xam ne oto yi duñ fi jaar mais nit ñi dox seen tànk ñoo fiy jaar ak borom bicyclette yi léegi dañ ko séparer fii bicyclette yi ñoo fi war a jaar beneen côté bi nit ñi dox ñoo fi jaar tableau bi daanu na mais xam naa dama leen koy filmer ci suuf rek. fii tableau bi moo taxawoon ci mbedd mi nga xam ni kuy dox moom fii la war a jaar ki yore bicyclette fii la war a jaar lii mooy aree pedo ak pedonale accanto ad ci pista ciclabile noonu la tudd ci capitale bu njëkk bi euh, bu euh, argument bu njëkk code bi définition générale dañ ci dégg baatu pankina pankina bi nga xam ni pankina bi nga xam ni euh, P commencé mooy lii nii banc yi nga xam ne dañ ciy toog boo doxee ba sonn mën cee toog moo tudd pankina ci piazza yi nga koy fekk yenn saa yi wala foo xam ne ay nit danañ fay dox di day sonn di sonn euh, am fu ñu mën a def repos. waaw mbokk yi ñaari tableau yaa ngi nii gën a leer euh, tableau arrêt pédonal baa ngi nii arrêt ci club baa ngi ne le waaw kon lii la woon euh, di wax rek yenn saay day baax ndax euh, am na ay avantages yu bari bokk na ci yokk wér gi euh, ndax nee nañ al aql salim fil jismi salim euh, un esprit sain dans un corps sain nit muy def ay mouvement di yëngatu day tax mu gën a wér bokk na ci tamit avantage yi diminuer incunamètre incunamètre atmosphérique mooy pollution atmosphérique bi ñu wàññi loolu tamit bokk na ci avantage yi marché la ñuy def di leen nuyu lu bëree bëri jërëjëf